jaam bi gëm yàlla te sax ci la ko war ba yàlla gërëm ko bu yàlla dee jël ak ruuxam day fekk yàlla gërëm ko moom itam xolam sedd ci yàlla mu gërëm yàlla yàlla gërëm ko su ko defee na kon bu ñu jël ruuxam dañ koy wax ne ko yow boroom bakkan bu dal bi ci topp yàlla ak sàkku ngërëmam xamal ne day am nga ngërëmul yàlla kon nag yow ruu gu teey gu sell gi génnal dellu ci sa boroom sa boroom gërëm na la nga gërëm ko boole na la ci jaamam ñu baax ña boole la ci ñay dem àjjana faslun li ab dog la fii zikri fitnatil qabri ci tudd fitnay bàmmeel wa zikril malaki ak tudd malaaka ma allasi ma nga xam ne yadxul dana bi al qabra qabru ba qabla munkarin ci njëkk munkar wa nakiirin ak nakiir wa fil xabari nekk na ci xabar ànnal mu'mina naka aji gëm ja yuftanu def na ko nattu fi qabrihi ci bàmmeelam sabaxata ayaamin juróom-ñaari fan wal kaafiru yéefar ba arbaxiina ñeen fukk yow man ci ay fan wa qaala nabiyu alayhi salaam man maata ku faatu yowmal jumuhati ci bëccëgub ajjuma aw laylatal jumuhati wala guddig ajjuma am manahoo kon wóolul ko allahu yàlla taxalaa kawe na min fitnatil xabri ci fitna yi bàmmeel wa fil xadiis nekk na ci xadiis ba innamal xabru naka bàmmeel ba rawdatun benn muy ab dër min riyaadil jannati ci dëri àjjana aw xufratun wala muy am pax min xufari naari ci pax yi sawara wa fil xabari nekk na ci xabar ba xan abi umaamata jële ci abi umaama albahiliyi radiallahu anhu ida tuufiya ndeem faateef na arrajulu waaja wa wudiha te tegeef ko fii qabrihi ci bàmmeelam fayey jiw dana dikk malakul mawti malaakam deema xinda rasihi fa boppam wa munkarun ak munkar wa nakirun ak nakiir wa yuqxidaanihi te ñu koy dijj wa yadribaanihi te ñu koy dóor darbatan ab dóor waaxidatan bu di benn bi mitraqatin ci ab maratu min xadiidin bu bàyyikoo ci weñ gu ñuul walam yabqa te du des xubugun benn cër illaa xataxat fu ndare mu dagg ko wa talhabu te dana tàkk fii xabrihi ci bàmmeelam naarun aw sawara aw yu xaalu te dee fi wax laxoo ko xum jëwal bi isnillahi ci ndigalul yàlla fa isa huwa am ti lu may moom yaqxudu dana jóg jekki mustawiyan bi mu mi aji yemoo fa yasiixu te mu yuuxu xatan ak yuuxu yasmauhaa goog dana ko dégg maa li nga xam ne bay nal xaafi xaafiqayni nekk na diggante penkook soowu ay li mën a mu ci baatub al xaafiqayni al mashriqi moo di penku wal maghribi ak soowu illal jinna ndare jinne yi wal insa ak nit suma yaqulu topp dana wax lima ana lu tax faaltum ngeen def hazali walima ana ngir lan dara bu tumoo nii ngeen dóor ma wa anaate man kuntu nekkoon naa uqiimu di taxawal asalaata julli wa ootii te nekkoon naa di joxe azakaata asaka wa asoomu te nekkoon naa di woor ramadaana weeru koor xaaloo ñu wax ko ne ko naxoodu dana nu muslu billaahi ci yàlla min ci yow fa innaka naka yow mararta romboon nga yow man ab bis bi madloomin ci ko ñu tooñ waxuwa te moom yastaxiisu ma nga doon sàkkoo xettali ko bi ko ci yow falam tuxisfu te xettali ko wa sallayta te julliwoon nga yowman ab bis walam tastabri te laabluwoo booba min bawlika ci sam saw fata bayyana te bire bi xaasaa ci lii ann nasratal mi naka dimbali kañu tooñ waajibun waru gar la mbaa nga ne waajibatun aji war la kamaaru wiya niki net leefe ani nabi jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam man raa ku gis mazluman ku ñu tooñ te mu sàkkoo xeetlikoo bi ci moom wala mu xis fu te xeetliwu ko duriba kon dooreef ko mi ata sawtin téeméeri yar finnaari ca biir sawara donc bii daañu da ci wax fitna yu mën a am ci biir bàmmeel waxaale ci ba tey malaaka mi nga xam ne mooy njëkk fekk boroom bàmmeel bi ca bàmmeel ba balaa munkar na nakiir di ñëw maanaam balaa yaari malaaka yi laa ji ñëw am na am malaaka moo xam ne mooy njëkka dikk am fu jaar ak néew bi yaari malaaka yi laaj door dikk loolu nag addis ba nee ku gëm yàlla moom bu duggee ci bàmmeelam xëy na mu am juróom-ñaari fan ñuy seet ay mbiram di ko nattu bu dee yëfar nag moom daañu ko nattu ñeent fukki fan bu ne ku gëm yàlla daañu ko nattu ci bàmmeelam nee nañu mooy laaj ga ko yaari malaaka yi laaj ca bàmmeel ba te waxoon nañ na ko yàlla yi dëgërale ba mu tontu daldi mucc am na sax ñoo xam ne ci ñi yàlla kenn du leen laaj ci bàmmeel duñ fekk ci bàmmeel dara dara lu nuru luy jafe mbaa lu leen di jaaxal dañ koy fekk rek mu leer nañ ba fa seen bët yam lépp di xéewal ak leer moo tax addis bii mu ci teg daa wax ne ku faatu bëccëgu ajjuma mbaa guddik ajjuma yàlla musal ko ci lépp luy fitnay bàmmeel du fekk ci bàmmeelam dara dara luy nuru fitna moo teg ca addis ba wax ne bàmmeel moom benn muy ab dër ci dëri àjjana mbaa muy am pax rekk ci paxi sawara moo teg ca xabar bi nettalee ci abu umaama xabar bi dane waa ji bu faatoo bañ teg ko ci biir bàmmeelam malaakam dee mi day ñëw ba tollook boppam foofu nag gis nga tudd na fi malaakam dee mi ñëw fekk néew bi ca bàmmeelam toog fa bopp ba waaye daw ñu gis ñu tudd malaakam dee muy ñëw ca bàmmeel ba di fa fekk ka faatu waaye daal noonu la ñëwee fii da caa teg nag ne munkar ak nakiir yaari malaaka yi laaj itam daldi ñëw dij ko ba mu diju ñu tàmbali ko dóor dóor ko dóor bu méttee metti te lañ koy dóore ab martu lay doon martu weñ bu ñuul nga xam ne ñu ko dóoree benn yoon rek yaramam yépp day daggatoo def ay morsa bàmmeel bi mu nekk di tàkk di jëf-jëfi di sawara di ko lakk su ko defee ñu ne ko jógal mu daal di jóg su jógee ba toog dana yuuxu yuuxu goo xam ne lépp koy dégg ci penkook soowu ba mu des nit ak jinne nit ak jinne rek ñoo dul dégg yuux ga muy yuuxu mu daal di wax nag moom néew bi malaaka yi leen waaw lu tax ngeen di ma def lii lu tax ngeen di ma dóore nii man gëmoon naa yàlla daanaa julli daanaa joxe asaka daanaa woor ñu ne ko ah yàlla na nu yàlla musal ci yow ak ku mel na yow yow daa am bis nga romb ku ñu tooñ nga mën koo xettali mu naa la kaay xettali ma nga bañ bañ koo xettali am na boo xam ne itam dangaa julli waaye laabluwoo ba set ca saw ma nga xam ne moo doon génne ci yow da nga caa laabluwut ba set ñu dégg ci ne kon rek lañu waxoon ne ñàkk set ci sobe ci kaw sàggan rekk mën naa indi mboolum bàmmeel ba tey nee na daañu ci dégg ne kat kooroom bu ñu koy tooñ te nga mën koo xettali war ngaa taxaw temm ci xettali ko boo ko deful rekk bàyyi nga warugar woo xam ne ëllëg yow boo duggee bàmmeel man lañ la caa sonal mu indi sax addis bi wax ne ku gis ku ñu tooñ mu ne la kaay xettali ma nga mën koo xettali te xettali woo ko bu ëllëgee daañu la yóbbu ba biir sawara ñu dóor la ca téeméeri yar waru ye net leef na an abdillahi ibni omara radiallahu anhu ani nabii alayhi wa ne annahu naka moom xaala waxoon na ne arbaxatu nafarin ñeenti kuréel mbaa nga ne rek ñeenti jëmm ñu wax nafar kuréel rekk waaye kuréel bu nekk ñeent rek lañ jublu yax shuruhum dana leen pang allahu yàlla taxalaa kawe na yowmal qiyaamati ca bis xalaa manaabira ci kaw ay minbar mel na nga ne ay tirbin min nuurin ci leer fa yudxiluhum tama leen dugal tama leen di dugal fi rahmatihi ci yërmandeem xiila waxees ne ko man ulaayika ñan mooy ñooñee yaa rasulallah yow yonent yàlla bi xaala mu ne man mooy ka nga xam ni ashbaha reggal na jaayihan aji xiif wa man ak nga xam ne jahasa waajal na xaasiyan aji xare ji fi sabilillahi ci yoonu yàlla wa man ak nga xam ni ahaana dimbale na daifan aji doyadi aw malhoofan wala ku ñu jàqal ay limu ci namm mahzonan ku ñu jàqal min madlumin ci ku ñu tooñ intaha mat na min shajaratil yaqini bàyyi ko ci shajaratul yaqin addis bi Abdullah ibni Omar moo ko nettali jële ci yonante bi mu ne yonante bi daa waxoon ne ñeent ngi nii ñoo xam ne su bis ba yàlla taxawal leen da leen di taxawal ci kaw ay tirbini leer wëlbatiku nag dugal leen ci yërmandeem te mooy àjjana ñu ne ko ñoom ñu doon mu ne ñeent jëmm ñii kenn ki mooy ku fekk xiif mu jox ko mu lekk ba regg te yàlla rekk tax muy kenn ñaareel ba ku gis kuy dem ca toolub xare ba bëgg a yëkkati baatu lislaam mu jox ko yóbbal waajal ko lu ca mën a demee muy ñaar ñetteel bi mooy fekk ku néew doole mu dimbali ko ñeenteel ba mooy ku fekk ku ñu tooñ mu jàq te tiit nga xettali ko ñeent ñi ñoom la yàlla defal lu réy loolu bu ëllëgee ca bis penc wa amal malakun daal malaaka ma allësi ma nga xam ne yaddu xulu dana tàbbi alxabra bàmmeel ba xabla munkarin ci njëkk munkar wa nakiirin ak nakiir fa fi shajaratil yaqiini nekk na ci shajaratil yaqiin aydan ba tey ni annahoo naka moom ruya nettaleef na an abdillahi bini abdisalaam radiallahu anhu sa'altu laajoon naa rasulallahi sallallahu alayhi wa xan awwali malakin walis aji jëkki malaaka yaddu xulu moom dana tàbbi alxabra xabru ba xalal maytu ca néew ba xaala mu ne yaddu xul néew ba xabla ci njëkk munkar wa nakirin ak nakir malakun malaaka wajhuhu moom kanamam nga yetta la law dana melxati nuuran ci leer kasam si mel ni jant bi was mu fóote turam rawmaanu mooy rawmaan wa yuqidu te muy dij almayta néew ba su ma yàquwulu topp dana wax la ñeel ko ëkkutub bindal maa la nga xam ne xamil te jëfoon nga ko minal xasanaati ci ay yiw ba sayiaati ak ñaawteef fa yàquwul te muy wax la ko bi ay shayin ana ci lan dara ak aktubu lay binde ay na xalami ana sama xalima wa daa di ak sama daa fa yàqul tamit wax la waññeel ko xalamu ko sa xalima usbon ko moo di sa baaraam wa mi daadu ko sa daa riixu ko mooy saw lor fa yàqul tamit wax bi ay shay'in ana ci lan dara aktubu lay binde fii ci moom walay sama te dir mi ànd ak man sax saxiifatun aw kayit fa yaqtahu te muy dagg min kafanihi ci càngaayam la xitxatan ab morso fa yunaawiluha te mu koy jottali laxooñal ko fa yaquulu te muy wax ne ko haadihi lii saxiifatuka mooy saw kayit faktub bindal fa yaktubu te muy bind maa la nga xam ne la jëfoon na ko fi dunyaay ci àdduna min xayrin ci aw yiw wa charrin ak ay fa isa balaxa bu jotee sayi atan aw ñaawteef fa yastax yi day rus min xaaja ñaawteef wa xaala wax la ko almalaku malaaka ma yaa xaati u yow aji moy ji ama tastax yi lu teexoon nga rusoon min xaalixika ci aji bind sa mu yàlla mi la bind xay xamil taxaa fa ko jëfe woon fi duniyaay ci àdduna watas tax yii te ngay rus nag min nii ci man al aana léegi fayar famu te mu yëkkati alxamooda kenu la fa yadri bufoo tey wax alxamdu jaam ba irfa yëkkatin xànni walis ma alxamooda kenu li xataa ak tubaxaa ba ma bind ko fayar fa am koy yëkkati fa yaktub te muy bind fiiha ca moom jamiha xasanaatihi mboolem yiwam ya wa sayiaatihi ak ñaawteefam ya summa ya amruhu topp dana ko digal an yàpp wiyaha mu lem ko wa yax timaha te mu koy tàmpe fa yaqul te muy wax bi ay shay'in ana ci lan dara axtimuha laa koy tàmpee walay samaay te dir muy ànd ak man xaatamun ab tàmpe fa yaqul muy wax laxoo ñel ko ixtimha tàmpe ko bi zufrika ci sa wex wa yaxtimuha tem koy tàmpe bi yi ci wexam wa yualliquha tem koy takk bi unuqihi ca doqam ga te cee teg ay fiihi ay li mu ci namm fii ca dox ga waaye daa mel ni ay fii ci bu ñëwutoon du ci wàññi dara ilaa yawmil xiyaamati ba bis penc kama ni suñ borom waxe ne wa kullu insaanin képp nit alzamnaahu taqalal nan ko taairahoo téeréb jëfam fii xunuqihi ca doqam nga wa nuxriju te dana nu génne laxoo ñeel ko yawmal xiyaamati ci bis ba kitaaban ab téere maanaam kayitu jëf yalqaahu boobu dana taseeg moom manshooran muy lu ñu tàllal tuma yadduxulu topp dana dugg nag alihi ci moom munkarun munkar wa nakiirun ak nakiir malaaka mi nga xam ne mooy njëkk ñëw fekk néew bi ci bàmmeelam balaa yaari malaaka yi laaj ji ñëw malaaka moomu rawmaan la tudd ndax Abdullahi ibnu Abdi Salaam yal na ko yàlla doole gërëm ne dama laajoon yonent bi ne ko man malaaka mooy njëkka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 yet wu rëy rëy toll ne kenu daldi koy dóor néew bi néew bi da koy wax ne ko yëkkatil yat yu ma dóor ma bind li ma a bind su malaaka ma yëkkatee yet wu diis woowu néew bi daldi bind nag lépp lépp lu mas a def muy lu baax muy safaan ba lu baaxut su ba àggal malaaka mi ne ko lem ko te tàmpe ko mu ne ko mën naa koo lem waaye ëmb lu ma koy tàmpee mu ne ko sa wex nga koy tàmpee mu daldi lem téer moom néew bi daldi koy tàmpe ak wexam malaaka mi daal jël na këyit woowee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 nekk na ci bushral ka yib maa loo xam ne lafzuhu baatam ba mooy wa axraja génne na alxaafizu abul qasim alkaaniyu fi sunnati bi sanadihi ci càllalaam nga xan xomar ibni muhammad ibni nasr assaania mu ne kaana nekkoon abi sama baay moo la an di ko ñu xiirtal di ko ñu soppaloo bi salaati ci jullee xalal janaa isi ca tàdd ya faqaal te mu wax lii ñeel ma ne yebb ni yow sama doom xadartu teewe woon naa yow man ab bis janaa satan ak tàdd falam ma dafanuuxaa ba ñu ko sóolee na sala wàcc na ilal xabri jëm ca bàmmeel ba nafsaani ñaari jëmm tumma xaraja topp génn waahidun kenn wa baqiyata des al aaxaru ka ca des waxataa te sëkk annaasu nit ñi ak turaaba suuf sa fa ma wax ne yaa xaw mi sama nit ayu dufanu ndax def na suul xayun aju dund ma amayitin ànd ak aji dee fa xaaloo ñu wax ne maa sàmm déet di nekk foofee ahadun kenn toxultu ma wax lahum ñeel leen shubbiha man day muroo na mbaa lëmta na lii ñeel ma dama rajaatu topp ma dellu foxultu ma wax ne maa ra'aytu man daal gisuma illas nay ni ndare ñaar xaraja génn na waaxidun kenn wa baqiyata des al ko ca des laa abrahu duma deñ ci sama taxawaay bii xataa yekk shifa mbate wuññee mbate muree lii ñeel ma allahu yàlla xam maa li nga xam ne raaytu gis naa ko fa inni naka man xaaifun aji ragal laa xalaa xaq lii ci sama xel wa diini ak sama diine fan shaqate xar alxabru bàmmeel ba wa xarajate génn minhu ci moom saxsun jëmm fatawallaa te mu dëddu mudd bi ran mbir mu muy aji wane gannaaw faqultu ma wax ko ne ko yaa yow kii bi ma aboodika maa ngi waat ci ki nga xam ne moom ngay jaamu muy yàlla illaa waqafta ndare nga taxaw xataa asalaka ba ma laaj la famal tafata te géstuwut illee jëm ci man faqultu ma wax laxoo ñeel ko attaaniyata yoonu ñaareel wa taalisata ak yoonu ñetteel faltafata mu door a geestu wa xaala mu ne ma anta yow ibnu nasr assania ndax yaay ma ne ko na xam waaw xaala ne ma ama taarifu nii ndax xamoo ma xultu ma ne ko laa déedéet xaala mu ne ma ndax nu nun malakaan yaari malaaka lanu min malaayikati rahmati yu bokk ci malaaka yi yërmande mu wakkalaani ñu di ñu ñu wakiil ñu di ñu délégué bi ahli sunnati ci ñoñ xeñtu sunna isaa wadixoon ndéem na leen fi xuboorihim ci seeni bàmmeel nasal naa nu wàcc li na ngir nu sax néew ba su maqaaba nag toog mu door fàddu mooy mu door mes an yi walis ma boo de xool ca bushral ka it andi nañ fa lii mu la nettali ku ñu wax abul qasim al alkaaniyu nee na ku ñu wax xomar te baayam tudd muhammad ibnu nasr moom moo nekk li wax ne saabaay baay day dafa nekkan ku yàlla bëgguloo lu aju ci toppatoo néew yi ci jullee ga ak biñ demee ca armeel ya ne saabaay ne ma mas na maa fekke néew boo xam ne day bañ koy suul ni ma gisee ñaari jëmm ñoo dugg ca biir armeel bi gannaaw ba ma gis nag kenn génn ka ca des moom bañ a génn ba noppi nag nit ñi tàmbalee suul bàmmeel bi ma ne leen da ngeen di suulaale kuy dund man de ñaari jëmm laa gis ñu dugg ci biir te kenn rekk laa gis mu génn ñu ma ah déedéet kenn rekk a duggoon te génn na néew rekk a des ci biir noo ngi suul